tànn fas ko yéene waxtaan tom la bu am solo muy sawmu ramadaana ahkaamun wa asraar woor weeru koor ak li mu am làmboo ci ay àtte ak i mbóot xam nañ borom bi tabaaraka wa taala suñu borom dafa yoonal koor ngir ay njariñ yu bare bare bare bare yu mu làmboo ak i mbóot yu màgg yoo xam ne xalima yi bulaxaa u yi eh, yut na ci lu bare bare bare bare waaye xalaati boroom xam-xam yi ak xukamaa yi ñoom dem nañ ba gëlin ci ngir bari gum bari te mënuñu ko jaxal borom subhaanahu wa taala dénk walla làmbaaye koor ay xikam ak i mbóot ak i njariñu àdduna yu àllaaxira yoo xam ne su fekkoon bakkanu ki yoor xam na lam la ca nekk mooy mën na koo gis xelam dañ na ko la ca nekk yool bu màgg ak pay gu rëy dana ko jural mbégte mu rëy rëy rëy te dana mbébét it weer wi yëpp dana mbébét at mépp doonoon koor suñu xamoon la ca nekk dañ mbébét at mépp doon koor nga lam cay dund ci ruuxam ak rayxaanam kon kuy wax ci mawdu bu mel nii rek tomb bu mel nii day wax rek ci kemt layal fa xalaatam àgg ak fa ca xelam toll waaye lu yaatu loolu mënee su ko jaxal ci benn jotaay mënee su ko mënee su ko euh, matal lépp itam koor nag wasila la mën na aw yoon la ba màgg wuy mën jur ak ragal yàlla ci di ko koy def te ragal yàlla nag ci la mboolem njariñu àddina yu àllaaxira yëpp daje ndax li suñu borom wax ci la yoon saa soo nettali ne suñu borom nee na kullu xasanatin bi ashri amthaliha ila sab'ati mi'ati da'f bépp jëf bu ab julli jëf ci lu baax dañ ko ful ba muy fukk su mbaam ci coobaree nag mën na koo ful ba muy juróom-ñaar téeméeri fulandi mbaa moo fukk sun borom del waxaat ci benn xadis ku siine jëf yi doom jëf yi jëf doomu aadama ju nekk doomu aadama baa ko moom nit lu mu jëf moo ko moom ba mu des koor fa innahu li wa ana ajzi bi koor moom maa ko moom tamaa fee sama bopp waaw bu ñu xoolee ne suñu borom askane bi teral gi teral koor ci askane ko boppam te donte jaamu yàlla yépp moo ko moom waaye koor la ci moomale bopp ne maa ko moom noonu la teral itam baytullaahil xaraam askane ko boppam te suuf sépp yàlla ko moom waaye bu ca tànnee koor nag jagleel ko boppam askane ko boppam ngeen ñaari maanaa moo ko waral ba ci njëkk mooy koor ñaari yëf rekk la mooy kafun wa tark koor ñaar rekk la mooy fegu ak bàyyi moom ci bopp moom koor ci bopp itam di mbóot maanaam jëfi biir la joo xam ne amul jëf ju ñuy jàkkaar lool jëf ju ni kii jëf ñu ne kii kat jëfam ji la xam nga kii julli da nga gis jëf yu jëf mbóot leen kii day julli ko joxe asaka lu mu def nga day natt xaj màkk am na jëf xam ne kii day xaj màkk waaye koor nag amul jenn jëf ju ñuy jàkkaarlool joo xam ne jëf ji nga xam ne lii jëfi koor la kon mbirum biir la kon jëf la jooju kenn du ko gis yàlla rek mooy ki ko gis koo niwul damaa woor doo xam ne dangaa woor kon jëfi baatin la joo xam ne muñ kese kese kese ba ko ñaareel mooy jumtukaayu nottukaayu noonu bi yàlla bi la azza jalla ndax yoon seytaane yàlla na ko yàlla dolli rëbbu yoo ay yoonam ci nit mooy bànneex yi te lii dëgëral bànneex yi mooy lekk ak naan moo tax yonent bi saa sam waxoon ne inna sheytaan yajri min ibni aadama majara dam sheytaan dafay daw ci biir doomu aadama ni deretam di daw ci moom kon koor nag bu fekkee dafa jagoo nag loolu mu jagoo kon dafay nekk nottukaayu seetaane di mëdd aw yoonam waaye di xatal nag ay jaar waaye yu muy jaar mbay man a jaxase nit ak di ko jax-jaxal ci loolu nag la kon la la yaayoo jagoo askani ko sunu borom askane boppam tabaraka la mu taxaw nag ci kaw dimbali yàlla ci ci not gi muy not notu yàlla boobu ci lay dimbale yàlla waaye dimbale yàlla ko ci lay taxaw ci kaw dimbalal yàlla lu mu koy dimbale wala su ma wax ne in tansurullah yansurku wa yusabit wa yusabit wa yusabit aqdamakum ca kam xam naa nañ mën a dégg nag dimbale yàlla su ngeen dimbalee yàlla yàlla dimbale leen te dana dëgëral seen tànk dana leen dana leen may kàtt dana leen dëgëral kon nag njëlbéen gi mooy farlu jaam bi ànd ak nag ñaareel ba nag mooy payug yàlla ci gindi gum koy gindi defal ko hidaaya ci loolu muy muy muy jéem mooy nit su fekkee dafa jéem ba fa kàttanam yam lajal sa yàllaa ko jàppal tànkam àggale ko ci la mu tàgg walla leen jaaxedo fii na leen na din suba la na ñi nga xam dañoo góor góorlu def lañ man lépp e, ngir jëm ci nun yàlla noonu jàppal seen tànk dëgëral leen dafa leen ba bañ bañ bañ àgg fa leen tax a jóg nit li fekk ma teg tànkam foofu yàlla yàlla nekk ndimbalam li koy dimbali di ko dëgëral waaye saa bu soppi ko saa bu eh, ndimbal suñu doon soppi ko rek na xam ne kon moom moo soppi ko ndax yàlla du soppi la nefi aw ndi lu may ñoom ñoo soppi seen bopp yen la laa yoxe ma bi xawin xataa yoxe yu ma kon li fay ngi sax ci njub googu jëm sa kàttan la nga mën lépp rek yàlla sax ji dee dimbale ni kon nag soppi ko googu nag mooy baril ay bànneex te bànneex mooy eh, forukaayu seytaan mooy tooli seytaane mooy dox mooy barab ba muy doxantoo mooy bànneexi doomu aadama kon li fekk bànneex yi mi lu mu gën a naat rek taraddut di gën a a am li fekk ñi ngi sax di nekk ci taraddut itam jaam bi màggu yàlla du mës a wuññiku ci ab xolam mukk ku ñuy yiir lay doon ci daje borom subhaanahu wa taala ci anam googu na la koor nekki kon buntu jaamu yàlla nekk itam pakk bu koy fekk ci lépp lu du noona su fekkee ne ngënee la màgge na noonu màgge nag ba àgg ci dayu bi kon mënta ñàkkoon ñu leeral na kon ay charte zahiram may charte yi nga xam ne yu feeñ la muy yu ñu xam ci tudd ay arkaanam ak i sunanam mooy ponk yi ak sunna yi ak la ci aju ci ñoom ñar ak charte baatinam ak la mu làmboo kon loolu mooy waxtaan wi bu dee waajaba waajaba zahiri yeey warugar yi nga xam ne yu feeñ la juróom benn la ba ci njëkk mooy njëkk fuglu njaal beenug ramadaan ci seentu weer ba gis ko gis weer mbaa ñu gisal la ko kon benn jis ko ci séentu bu njëkk ci Sha'ban mbaa ñu matal Sha'ban fanweer su fekkente ne dafa lëndëm ba gisuñu ko dese su bu nee gis ko nag mooy xam ko rek donte keneen da koo gis nga xam ne feeñ na atteb gis la waaye bu dee feeñu weer koor mayees na ci tegtaloo ci ci gisuñ ñaar ñu maandu wala kenn ko maandu sax kenn ko maandu ko ñëpp xam nañ ak maandu sax bu gis na ko des na ci sukkandiku waaye bu doon kori nag moom faaw ñaar ñu maandu ci li ñuy sukkandiku ngir ixtiyaat ibaade gi ba ko ñaareel mooy yéene yéene nag barabam mooy xol dañ ci desuwaat bu ñëwee ci àtte yi ñetteel mooy jàpp ci lépp lu mën a àgg ci biirum nit ki ànd ak fàttali ko koor waxtu yu nga koy def te tay ko ba ko ñeenteel mooy jàpp ci sëy mën a téye sa bopp ci sëy ba ko juróomeel mooy téye sa bopp ci génne ma ni yu moo xam ne yaa ko sa bopp sabablu tam génn nga xam ne ak jublu la ànd ak bànneex ba baaxoo àndal ba ko juróom-benneel mooy jàpp ci génne am wàccu moo xam ne yaa ko sabab la yooyu tënk la waaye dañ ci desuwaat ci axkaam yi ci gën koo leeral bu dee sunna dañ ci ñëw ci kanam waaye axkaam yi ay at ay attey koor la ci jiitu mooy lan mooy koor koor ci tënk mooy bàyyi ñaari bànneex mooy bànneexu biir ak bànneexu pëy li dal yi fenku fajar ba ci soog jant te julli ci jaam yàlla bu doon tënk koor ci tënk bu gàtt mooy loolu <coughs> mooy bàyyi bànneex yi biir ak yooyu pëy li dal ci fenku fajar ba jant so te jublu ca jaamu yàlla soo ko bàyyi woon te jubloo ca dara doo ci jële dara boo tekk dara kon yéene foofu la amee njariñ ana la war mooy ab julit bu doon mukallaf wax ne jot na gént te xel te jot ci wooteb lislaam lu may dafa am ngànt ñu dégge ci lool nekkoon kon koor warul xale xale bi jotagul gént wëru ko waaye su wooree teewul koor ga dana wér warul ku tàggoo kom xelam ku ñuy tuddee ab dof ak teqali kom xelal xelam teqali ko goo ne moo ko teg boppam moo def lu ko teqali kom xel moo def lu tag lu ko tàggale sagoom koo ca waxtu woowee koor waru ko su waree wala bu ko waree bu ko waree bu waree koor ga du wér ki kom xelam moo xam moo ko sabulu moo xam sabulu ko su waree koor ga du koo xam ne woote lislaam ak siwut ci moom tey def naa loolu moom jamono weesu na ko kon dund na ba faatu mu yëgul ne am na yent bu wàcc bu tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne su ma wàccee téere bu tudd alxuraan yëgul ne daal dinañ tudde sa am na ba faatu kooku yàlla topp ko dara ndax suñu borom wa maa kunna mu'adhibiina hattaa nab'atha rasuula bala maa mbugal kenn da fekk sama ndaw njëw ci moom ba àggal sama woote ci moom kon ki jotul ci watu yént bi te loolu defe naa jamono wees na ko léegi ñëpp jot nañ ci warul it jigéen ji gis ngant moo xam nganti mbërëg la di ko wax baax wala nganti gasin la muy deritam doom ku ci ne ci ñoom ñaar su wooree koor ga du wér woor sax day xaram ci moom jël ci abi Saïd al Xudri yi yal na ko yàlla gërëm wax ne yonent bi sallallahu alayhi alaysa isa xaadatil maratu lam tusalli wa lam tasum xanaa du ne su jigéen gisee baax du julli te du woor kon du woor waaye koor ga da koy fay du julli waaye julli ga moom du ko fay nganti koor yan ngant yi nga xam ne kum gaar sañ ngaa bañ woor te doo ci am mooy wéradi gu tar ki wéradi wéradi gu tar goo xam ne mënut a ànd ak war su waree dana ko jural jafe-jafe am na ngàntul dog dog ci kaw bu fekkee docteur bu doon ab julit bu am xam-xam eh, moo ko xamal ne ta wóoroo war boo waree kat dana la jural jafe-jafe sàngam wala dana dolli sag wéradi wala dana tax yéex wér am na sañ-sañu dog ngir loola ba ko ñaareel mooy tukki tukki boo xam ne mën na masaafatul xasr tukki bi an sañes na ca wàññi julli te tukki boo xam ne dem bi rek mat na juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar kookee am na sañ-sañu bañ a woor ni mu amee sañ-sañu wàññi ay julleem ndax tukki bu gudd ñaar du ñàkk ab coono am ca waaye coono ba nag bari coono ba ak néew coono ba nag mi ngi aju mi ngi aju ci situation kii tukki rek nu mu demee ak donte tukki amul lor sañ am na sañ-sañu ndog ñaar yooyu benn aaya ko mari danaw ala safrin fan iddatu min ayyaamin ukhar suñu borom nee képp ku di ci yéen wala mu tukki mën naa jàppale idda kooram googee ba ci yeneen bis waaye amul benn coona amul benn fitna du ca yëg benn coona su boobaa su wooree nag koor ga mooy doon am na sañ-sañu dog waaye su wooree koor gaa gën nag ndax la sunu Boroom wa an tasuumu xayrul lakum su ngeen wooroon day moo gën ci yéen ak xadis bi soxna Aysa solo yàlla ko yàlla gërëm mu ne Xamsata bni Amrin al aslami yi dafa fa yónni saa ne ko yaa Rasulallah te fekk kooku dafa dekkoon ko bari lu muy wor a asuumu fi safar ndax su ma tukkee damay woor mu tontu ko ne ko in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa aftir kon yédé kon kon booy tukki kon bu la neexee nga wor bu la neexee nga dog ba ko ñetteel ci ngàntikoor yi mooy jigéen ji toll fenn jigéen ñu toll fenn am na sañ-sañu dog ci kaw su fekkee dafa ragal lor ci jëmmam mbaa mu ragal lor ci li mu àndal am na sañ-sañu dog bu jàllee mu fay ba ko ñeenteel ci ngànt yi mooy kii nàmpal daganal daganal ci daganal nañ ci moom mu dog fekkee ragal na lor ci boppam mbaa ki mi nàmpal fekkee doom ji muy nàmp ji mi nàmp féeregut te mën a a lekk wala nangul ko dul yaayam kon daal ngant yu bare bare xam su su wooree dana ko wala su wooree sax du am lu doom ji nàmp kon su booba am na sañ-sañu dog waaye buy fay na da koy booleeg joxe mudd ni ko noonu eh, yun sal xadis bi ko teg dama li yun sal waxoon ne inna allaha wadaa anil musaafiri chatra solaati wa anil musaafiri wal xaamili wal murdani as yàlla wàññil na kii tukki xaaju julleem ci julli rakka yi waaye teggil na kii tukki ak kii ëmb ak kii nàmpal koor ba ko juróomeel mooy kii baru sinni mooy ki nga xam dafa àgg ci mage ba yaram mu ëttandatut koor kooka am na sañ-sañu dog tey lele bis set mu jox miskin ëmmud su ko amee su ko amul nag ñaar yëpp wàcc na ko su amul lu joxe koor wàcc na ko joxe nga wàcc na ko ngeen xadis bi Abdullah ibn Abbas solo wax ne ruqisa li cheikh al kabiri an yaftura wa yatama an kulli yawmin miskinan wala xada alayhi bu dee farata nag koor ñaari farata rek la am ba njëkk mooy yéene ak jàpp ci mboolem yi dokkoor bisul lëmm li dal ci fenkuk fajar ba ci soog jant ndax suñu moo ne lekk leen naan leen ba leeruk fajar gi fees ci lëndëmu guddi gi ay xaytul ab xaytul aswad julu ci ay wëñ waaye jim xaytul abyad mooy leeruk bëccëg bi xaytul aswad mooy lëndëmu guddi gi waaye léegi nag xëy na yooyu bañ cay tegtal boobu mën tër amagut waaye léegi jumtukaay yi mën a xamee waxtu bari na sartu ne ci koor yéene ji jonjoo ak moom ni nga xamee ne yeneen jëf yëpp yéene ja day jonjoog jëf ja su day njàpp yaa ngi yéene ci farata bi njëkk ci njàpp muy sëlmu su dee leneen su dee julli yaa ngi yéene ci bi ngay kabar kabaru xarmal jëf ju nekk yéene ji ak jëf ja day jonjo ba mu des koor koor moom yéene ji ak jëf ji mën na bañ a jonjo bi bi neweer si seeñ la rek ku ne sañ ngaa fase foofu sa koor pas-pas boobee daana la ci weer wi lépp mën nga bañ a yeesal lu may dangaa dem ba am ngànt dog soo dogee booy tàmbaloo da ngay yéene waat waaye su fekkee li fekk dogo moom yéene ju njëkk ji mooy wéy waaye bu dee ci malike dañoo sopp nag bis bis bu set nga yéen nga bel ko yéene boppam dañ ko sopp rek waaye yéene ju njëkk ja doyan na ci weer yépp ba tey xëdd it mën naa wutu yéene xëdd mën naa wutu yéene ndax yéene jëfi xol la te ki xëdd day tekkal ne ka am na pas-pas woor moo tax kon xëdd mën a tax taxawaayu taxawaayu eh, taxawaayu yéene yéene ji nag dañ sàtt mu jiitu fajar na jiitu fajar kon waxtoom mooy guddi gi lépp la dale ci jant bu sox ba ci fenku fajar diggante bépp barabu yéene la salaasu neew na man lam yaj man lam yaj ma siyaama xablal fajar fala siyaama la ku yéenewul li jiitu fajar amul koor su ko da nga dem ba bët set mosu ko dara nga ne ah naafar woor rek koor googu du wér kon yéen jafaaw day jiitu fajar bu faratam ñaareel bi mooy imsaaku anis euh, mooy téye sa bopp ci mboolem yi dog koor tegtal mooy wukku la boo jëm waxoon léegi lekk leen naan leen ba keroo len na ma guddi gi di feeñ leer fajar gi di feeñ ci len na guddi gi moom la Sëñ Tuubaa di wax ne siyaamuna lahu faridataani bila ziyaadatin wala nuqsaani niyatuna wa kafuna an muftaraat li wa ci baaxin mutaimin bi tayibaat bu dee sunnay koor ñett rekk la mooy xëdd sunna la buxaari yu ak musuñ ko ci solo na jële ana sunu maali wax ne din saasu nee na tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd barke ngi ci sopp nañ na yeexe ko yeexe ko ba ci mujj guddi gi saxaaba yi dañ daan bàyyi ba nga xam ne li des ci jàpp jàng juróom fukki yi ñoo fa xaj ñu door a xëdd jàng juróom fukki aay nag mën nañu ko natt ci juróomi minute Buxaari um si ko ci solo na xadis boobu ba ko ñaari mooy teel a dog ci bu leeree ni jant sona salaasam nee na laa yazaalu bi xayrin ma ajjalul fitr nit ñi duñ dañ di ci aw li yiw li feek ñi ngi tool teela a dog bu jant soya ba xay ak muslim ko ci solo na ko ci beneen xadis boo xam ne du Buxaari ak muslim wax ne laa tasal umati bi xayrin maa ajjalu fitra wa aqaru suxur sama xeet duñ dañ di ne ci aw yiw li feek ñi ngi teel a dog di yéex a xëdd jëliñ ci Abi Hurayra ba tey wax ne yéen saa sallam nee na suñ borom nee na inna ahabba ibadi ajalahum fitra ki ma gënal ci samay jaam ñi ma gënal ci samay jaam mooy ñi ciy gën a teel dog su jant soye ba ko ñetteel mooy néewal ay wax wax ju dagan wax ju dagan nga néewal ko wax ju xaraam moom daa wax ju dagan nga néewal ko bokk ci sunnay koor kaful lisaan fekk saw làmmiñ ci ay neen wax ju ñaaw ak wax ju amul njariñ loolu la Sëriñ Tuubaa ne masnuunuhu thalathatun inda al-labib taajilun al-futura min ba'di al-ghurub wa thani taxiru suxuri layla thaalisuha kaffu lisaani qawla bu dee yi yàqu mooy lekk ak naan ci tey wala njuumte lekk naan moo xam yaa ko tey moo xam ne gaa jum day yàqu bokk na ca sëy dafa yàqu koor bokk na ci génne ma nii yu moo xam ne yaa ko sabablu day yàqu koor àggul dara ci sa biir ak fu mën a jaar day yàqu koor lépp lu àgg cig bëli cig bëli tey lu nooy ndox walla meew wala ëbruy lépp loo xam ne lu yolom la su àggee ci bëli ga yàq na koor ga su dee lu dëgër nag da koy romb door ko mën a yàq fekkoon dafa am loo dem ci sa bëli lu dëgër nga fexe ba génn war ko lu mel ne xooxu bëy wala yu mel noonu su sa koor yàquwut Euh, bokk na ci itam tux kii tux tux day yàq koor banatu xet gu am doole lool xet gu am doole nga banati ko dafa yàq koor saxaarus cuuraay su la duggee day yàq koor waaye bu dee saxaarus mat nag moom yàqul koor saxaar bokk na ci itam rotal si yéene jekki-jekki amutoo yéene koor toog yaa ngi jekki-jekki amutoo yéene koor donte lékkoo naanu sa koor yàqu na bokk na ci itam looju mooy wàccu moo xam ne yaa ko sabablu yàqul koor da yàqu koor waaye bu dee nag koor mu la bu dee wàccu mu la noot moom ñëw yàqul koor waaye su fekkee yaa ko sabablu da yàqu koor ga ku jëf benn ci yii ma tudd su ko tayee fay war na ko kafaara war na ko su ko teyul nag fay rekk moo koy war bu dee yi ñu sopp ci koor yu bari la dog ci tàndarma ci la bokk ndax li yontu saa sam waxoon ne ita aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin fa innahu barka ku ciy dog yéen na doge tàndarma ndax am na barke fi sal fi isal bi tamran fal ma fi innahu tahur su amul tàndarma na doge ndox ndax ndox lu laab la bokk na ci dem su fekkee dafa julli bi dafa doge tàndarma mu def ko lu tóol benn ñett juróom juróom-ñaar ndax yàlla dafa tóol te dafa bëgg lu tóol inna laaha witrun yuhibbul witra mbokk ni ñaan ci waxtu dog soo dogee nga ñaan bañ a sàggan ci ñaan ak tàgg yàlla ci kam daal ni mu ko yeyoo sant xéewalam ci teggil gi mu la teggil coono ba noppi na yool ba des fa nekk yool bu màgg màgg bu mu lay dencee mu di la xar ëllëg allah ibn abbas ne woon na salaa sum mosaan dog day wax ne allahumma laka sumna wa ala risqika aftarna fa taqabbal minna innaka anta samiul alim Tabraani moo ko solo waaye Sëñ am na ñaam gum nu indil moom xam na li man aane dafa sunt bayit jeex bayit yu néew la yoo xam ne ñaan gu am solo xam ne jéggalu yàlla yu am solo moo ci nekk kon war na ko fexee mbokkal saa boo dogee jàngu salaasam su ma saan dog Abdoulaye Noomar neen daana wax ne dahaba zama wabtalatil aruq wa tabatal ajru insha allah mooy marwa dem na ñàq wa fendi na te yool bi des na fi incha allah kon ma te sant yàlla bokk na ñuy sopp ci kor itam bari ci jàmm yàlla bari looy sarxe rafetal jëm ci say jegeñaale ak jirim yi ak miskin yi jokk ci ak bokk defar ci diggante ak jépp jëf yiw ju mën a doon rek bokk ci taraawix yi muy naafil yi ñuy def ci ci jàkka yu jumaa yi ci guddi gi am na may may yu rëy rëy rëy yu ci nekk yoo xam ne ëppali na ko yeneen weer yi ci des yëpp sallallahu alayhi wa man nee na man xaama ramadaana imaana wa ihtisaaba gufira lahu maa taqaddama min bi képp ko taxaw di naafile ci koor gi te gëm yàlla lal ko def na ko jéggal li jiitoon lépp ci ay bakkaaram li antikaaf ci ci sopp la bokk filancil awaaxir fukki yu mujj yi nga di ko fiir ci jàkka ngën jaa néew mooy 24 heures ngën jaa yàgg mooy fukki fan mooy fukki fan yu mujj ci koor gi bokk na ci bari loo ci jàng alxuraan lool ak yeneen ak yeneen yeneen mustahabaat mooy suti limeef yu bari bare bari lépp lu baax rek bu dee yi ñu sib ci koor mooy ñaw ñam aw ñam ñam ndara yàbbiwaat ko yàqul ko waaye sib nañ ko baril ca ay wax donte wax ju dagan la bari cay wax dañ ko sib def garab ci sa gémmiñ te ngante waralu ko dañ koy sib jëfandikoo pâte firis dañ ko sib su ca dara rëcce jàll nag da yàq koor ga bokk na ci itam lañ ca sib muy fo ak lépp lu amul njariñ ci wax ak ci jëf ak waxi bébbant salaas nee na képp ko bàyyiwul jëf yi neen ak waxi neen yàlla amul soxla ci mu bàyyi ci mu bàyyi lekkamu naanam mooy yàlla amul soxla ci korom bu dee yi ci daggan nga xam ne mën nga ko def te du yàq koor daggan na nit ki fegal boppam aw tàngoor soo neexee taal kilimam yenn ca su ko neexee sotti ndox mu sedd ci boppam wala mu sangoo ko wala mu galax ndiko wala mu salax ndiko tamit ñu ko soril bu ñu jumhurul fuqaha yépp dëppoo nañ ci loolu eh, kenn ci eh, Abdurahman Abdurahman Abi Bakar dafa wax ne kenn ci saabu yoon sax mas naa waxtaan ma ci bokk na ci lam ma wax ne ma laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasubbu ala rasihi l ma wa huwa saim min al atashi aw il xarur ne gis naa yoon saas muy sotti ndox ci boppam te booba dafa woor dama xamul nag aw mara ko waral wala tàngoor ci lañ gis ne kon loolu dagan na ba ko ñaari mooy dagan na it nit ki xëyee jana ba xëyee jana janaba maanaam ki def luy waral sangu ci guddi gi démb ba set sanguut yàqul koor ga waaye nag am na bàkkaar bàkkaar mooy dañ xam ne kon kooku julliwut suba ñàkk a julli suba kon mooy bàkkaar ba waaye xëye ga nga xëye janaba janaba ji yàqul dara ca koor ga dagan na it lépp luñ munta moytandi moytandikoo dafa ngelaw poussière bi solo la yàqul sa koor da nga yor machine wal di wal sunguf si dinaaw di la solu yàqul sa koor eh, ni ko noonu saxar su matt jigéen ji ne ci waañ wi di togg saxar su matt dugg dugg ko du yàqu koor waaye cóolaleel ci nag su ko duggee dana yàqu koor moom ni lor yi nga xam ne mooy ci sa gémmiñ sa di ko wan na yàqul koor wan na say lor yàqul it socc ci bëccëg bi yépp ci sàdd na nga bañ caa taqal dara lu am caf ko lu mën a àgg ci boliga ndax li saa soo xam ne la wala an ummati la amatum bi siwaaki inda kulli salaatin bañ a sonal sama xeet naa leen digal ñuy socc waxtu julli wu nekk kon ñëw nag ci lenn ci asraar yi ak charti baatin yi ci koor ñu xam ne koor ni ko imaamul Xasaali waxee ñetti daraja la am am lu ñu tudde sawmul umum ak lu ñu tudde sawmul xusuus ak lu ñu tudde sawmu xusuusil xusuus su ma ko doon firi ci wolof sàmmunu umam mën naa ko firi firee koorug ñëpp koorug ñëpp sawmul xusuus koorug ñennat sawmu xusuusul xusuus koorug ñennati ñennat bu dee sawmul umam bi nga xam ne mooy koorug ñépp mooy koor gi ñëpp xam rek mooy fekk biir bi ba doo lekk doo naan fekk pay mi ba doo sëy loolu ñëpp ko man moo dañu ne kon koor gi ñëpp mooy koor xen ñëpp mooy mooy koor ñëpp ko man wala ñëpp ko man loolu mooy sawmul umum bu dee sawmul xusuus nag mooy koorug ñenn mooy fekk say nopp ci déglu lu xaraam fekk say bët ci xool xaraam fekk saw làmmiñ ci wax lu xaraam fekk sab loxo ci jëf wala laal lu xaraam fepp say tànk ci dox jëm ci lu xaraam ak mboolem cër yépp nag ci lépp luy jur bakkar luy jur nga moytu ko ca koor ga ba ci cër yi ba nga war a loolu mooy sawmul xusuus bu dee sawmu xusuusil xusuus kooruk ñennati ñenn nag mooy kooruk xol bi kooruk xol nga xam ne mboolem xalaat yu suufe yi ci xalaati àdduna ak la ci aju nga fekk ko ci xol bi lu dul jëmmi yàlla nga xam ne sa xol dara lu dul yàlla du ca nekk ci sa lépp nag loolu mooy dara daraja yonent yi ak siddiquna yi ak muqarrabuna yi ñu àgg foofa loolu du jar guddal ci ci tafsil yi waaye ci tax ki xam ci dëgg-dëggan daal ci jëf mooy jublu yàlla bi kun hil himmati alallahi azza wa mooy sa sa sa dëgg sa dëgg-dëgg yitte lépp nga jëmale ko ci yàlla doo geesu àddina doo ko xool doo ko bàyyi xel wan gannaaw lépp lu dul yàlla melokaanoo maanaam li sum doon wax ne xulillah zumma darhum fi xawdihim yalabuun yow muhammad waxal ne yàlla rekk a fi nekk moo wàcce téere yi wàcce yépp yàlla moom rek lañu war a jàmm soo leen waxee li ngeen a war a wax ne léegi bàyyi leen ñu wéy ci seenum po rek ba kere ñu dajeeg seen borom kon bu dee sawmul xusuus mooy sawmu saalixiin saw xusuus mooy saw kooru ñanat mooy koor gaa yu baax yi te mooy kafful jawaarix anil aathaam fekk say cër ci lépp luy jur bakkaar waaye mi ngi mate nag ci juróom benn yëf sawmul xusuus juróom benn yëf lay mate ba njëkk mooy xaddul basor damm sa gis fekk ko ci lépp loo xam ne mën a ci yaatal sab xool ci lépp lu ñu ŋàññe moo xam lu xaram la mbaa lu ñu sib nga bañ koo xool ak lépp lu soxlaal xol bi ba tee ko bàyyi xel yàlla nga fekk sa bët ba ko ñaareel mooy xifdul fekk saw làmmiñ ci waxi bébbant moytu fen ak jëw ak rambaaj ak wax ju ñaaw ak bécci ngeeni nit ak xuloo ak werante ak yu mel noonu waaye taqale ko ak noppi taqale ko ak noppi waaye soxlaal ko rek tudd yàlla ak jàng alquran loolu mooy kooruk làmmiñ sufiyaan nee na alxiibatu tufsidu sawm jëw dafa yàqu koor jëw dafa yàqu koor lay soloon jële ci mujaahid mu wax ne xislataani yufsidaani sawm al xiibatu wal ñaari jikko dañuy yàq koor ñaari yëf dañuy yàq koor muy fen ak jëw salaasam nee na assiyaamu junnatun fa idaa ahadukum saa'iman falaa yajhal walaa yarfus fa in imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul inni saa'imun inni saa'im nee na koor pakk la buy fekk nit ci lépp lu du noona képp ci yéen ku woor jàll kenn bu mu wax lu ñaaw bu ko def su nit ñëwee ci moom di wut xeeta xeexa moom mbaa muy wut moom ne ko man daal daal damaa woor mu tafon ali ba ko ñetteel ci tax sawmul xusuus mat mooy fekk say nopp ci déglu lépp lu ñu sib mbaam muy lu xaraam ñu xam ne lépp lu araama wax araam naa déglu lépp lu araama wax lépp loo xam ne wax ko dafa araam déglu ko dafa xaraam moo tax suñu borom yamale déglu déglu lu xaraam mu yamale ko lekk ger sàmmaauna lil kadibi akaaluuna li soxt yahud yi lay wax dañuy déglu lu ñaaw waaye dañuy le lekkikati ger lañu déglukati lu ñaaw lañu waaye lekkkati ger lañu sammaa'uuna lil kadibi akaaluuna li suxt su ma waxaat ne lawlaa yanhahumu rabbaniyuuna wal ahbaaru an qalimul ithma wa aklimu suxta la bii sama kanoo yasnaun bu fekkoon nee na seen kilifa yi ar rabbaniyuun mooy kilifa mooy kilifa nasaraan yi al ahbaar mooy kilifa yahud yi mu ne su fekkonte ne ñoom kilifa yooyee bu doon jamono moo nga xam mooy boroom xam-xam yi rek tere woon nañ leen ñoom nit ñi ca ga ñuy wax luy jur bàkkaar ak lekk ga ñuy lekk ñàkk gañ ko ñàkk def de ñaaw na lool lañu def ñoom ahbaar yooyu ak rabbaani yoon yi kon noppi ci jëw lu xaraam la déglu ko ko mu idan mithlahum léegi daal yam ak ñoom kon ña koy wax ña koy déglu ñooyam kepp ba ko ñaate ci lay tax euh, ci li tax sawmul xusuus mat mooy fekk nag cër yi ci des yépp ci luy jur bàkkaar muy loxo bi muy tànk yi ci lépp lu ñu sëbale mooy lu xaram fekk biir bi ci subaha waxuma lu xaram waaye lu lënt rek ci waxtu dog koor day mel ne dootu am maanaa su fekkente ne fekk feggu nga ci lu dagan ci bëccëg maanaam feggu nga ci lekk lu dagan xam nga bëccëg bi lekk daganoon na ci yow léegi fegu nga ci lekk lu dagan ci bëccëg bi ba ne ngoon nga doge lu xaraam xam nga ci bëccëg bi feggu nga ci lekk lu lew mooy woor nga jant so nga doge lu xaraam <laughs> su boobaa misaalam mi ngi mel ni ku tabax ab pale màbb ab dëkk tabax pale màbb dëkkub lëm mooy loolu mooy feg fegu nga ci lekk lu lew ci bëccëg bi ba ngoon nga doge lu xaram saa bu jegee jëm ci ndax mi ngi mel ni e, ku am ñam bu baax bàyyi ko fi lekk posen ba ak ndox a ngoog te lu xaraam lu xaraam tooke la lu xaraam posen la buy rey diine lu dagan nag saafara la su su néewee waaye su ëppee nag jariñ soo docteur bi lay ordonnance la garab gi kat del jël ñaari doom su jël ñaari ngoon ngo ñaar doom ngoon nga jël fukki doom suba jël fukki doom ngoon suba nag yaa ngi lor sa bopp lu dagan kon néewal ga njariñ la waaye bari ga lor la kon bu dee lu dagan baril ga ca la lor nekk waaye jëmmi naw ba moom amul lor moo tax salaasa newoon na rubba saiman xadduhu min siyaamihi aljuu wal atash bari na woor joj lay ci lam lam amee ca pay ca koor ga lam ci jële daal weesuut xiifa ku mar rek moo tax suñu tubaab di wax ne summa siyaamu fantabi lam lam yanxasir fi adami al akli faqad laa taxtari it rubba saiman maal jamaa lay sula fii sa yoon ma jaa nee na koor yëmul rek ci bàyyi lekk bàyyi naan ndax bari na ko woor bàyyi lekk bàyyi naan waaye nag du ca jëlee lu dul xiif baag marwa rekk borom xam ni ñu ko firee wut nañ maanaam koor gi nga xam ne mooy tax doo ci jël lu dul xiif ak mar ñii nee nañ mooy ki woor ba ngoon dogeelu xaraam kooka kooram xiif ak mar dong la ca jële am ñu ne déedéet mooy ki nga xam ne bàyyi na lekk ak naan ci bëccëg mooy woor na waaye jant so mu dog nag ci deri nit ñi doge tàmbalee jëw te jëw dafa xaram nee na kooka eh, koor ga xiif ma mar rek la ci jële am ñu ne déedéet koor gay jur eh, jële xiif ma mar rek mooy ki woor waaye sàmmul ay cëram nag woor nag waaye ay cëram lu ko neex def boyal na leen ci lu ko sob day mel ne bu mujj boobu nag mooy dëppoo xalaatu Sëriñ Tuubaa moom am njàngaleem na wana fa sawmu ay yasuumu kullu udwi an kulli ma yudifatan li sahwi amsik an nadari lil xaraami wal mashi wa sami mal kalaami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an akli mushir bin ulima nee na woor daal mooy sa cër yépp dañuy woor ci lépp lu amul njariñ ci luy jural nit ki njuumte kon nanga nga téye say bët ci xollu xaraam téye say tànk ci ndox jëm ci lu xaraam téye say nopp ci déglu xaraam téye say làmmiñ ci wax lu xaraam ba ci say xalaat sax na ko tënk ba ci bu ca xalaat lu suufe mbaa lu doye ndox ni xam ne mbirum àdduna ka dong dong dong aw aw ñam wu dagan mu néewal ko waxtu dog feesal dell dell dell dell day mujj koor dootu dootu ko am na njariñ ndax koor la ko tax a jóg mooy mooy mooy mooy mooy not not noonu bi yàlla bi damm ay bànneexam su fekkee ndikkam dafa dafa dog fas yéene la ko rawoon ci ndékki mu dabaatal ko la ko rawan ci añ mu dabaatal ko boole ko lim nar a reere su boobaa nag mën naa am xëy na lam waroon njariñ jariñu ci gi njariñ la doo ci doo ci jot ci moomu la Sëñ Tuubaa di wax ne wala tukassiri suhuura wal futuur moom teelal bat ne fa tuxramal ujur bul baril saw ñam ci waxtu xëdd waxtu ndog feesal dell sa biir nee képp ko feesal biiram aku ñam baril ak naanam baril ay nelawam ci koor mook bàyyi ma yee ca mbedd ma yooyam kepp te yiwu baree bare bari faat na ko neen na am na ci ñooñ wa baadoom yakulu aklal baqari waxtu futur waxta saxri ne ndaw ku ndaay bu ñu dog dañuy mel ni aw nag aw nag ku ne xam ne na muy lekk na muy naane nee bu ñu dog dañuy mel ne aw nag rek ba ñu xëdd ba biiram gis gann xolam daal di soxla woon ak leneen lu jàmm yàlla la ca nekk mooy nelaw rek bu ne muy wootee ne daa waroon te fekk lu toll ni fatir sax topp ko ca koor ga yàlla na ci yàlla musal nga xam ne kon jublu gu war daal mooy xiif damm bànneex néewal euh, man a dëgëral dëgëral bakkan ci ragal yàlla kon dana <coughs> dana day aaju kon lam daa lekk guddi su waree lam daa lekk guddi na ca yam lam dam baaxoo lekk guddi rek lam baaxoo rek moo yem ca bañ caa doon leen waaye dangay nga gis ne nit ñi li ñu lekk ci koor mooy ëpp la ñuy lekk ba ñu war a gudd ndax lu doy la xam nga koor bu ñëwee dépense daa war a wàññi ko fi ne koor bu ñëwee dépense da yokk loolu dootoo xam kon lu muy niru la ko taxoon jóg léegi day day day sànku bañ a bari ay nelawam itam ci bëccëg bi dafa war a yëg xiif war a yëg mar war a yëg itam néew kàttan ci loolu la ab xolam di selle saxal ci guddi gi nekk nag ndax mooy tax mu am woyof ak guddi gi nekk mën a def itam eh, ay nawaafilam tahajjud ak yàlla waraatam ma am woy fu mën ko def waaye su diisee gan na nelaw dong lay man dootu mën leneen subaa kooku ku ñu yiir la ku fe ku wéetal biiram xiif na doy na rek du doy ci man ko yëkkatal xijaab yi digg boromam lu may dafa wéetal imaam yitteem ci yàlla rek nga xam ne yitteem ci yàlla rek la koy jëme loolu ci fi la mbir mépp nekk nag waaye néewal aw ñam ba ko juróom benneel ci tax e, sawmul xusuus mën a am njariñ mën a mën a mat may ab xolam nag bu dogee na ko aj ci diggante xaw fa ak rajaa ndax xamul ba xam xoor koor gi lu ñu nangu lam ndéet suñ ko nangoo mbokk ci muqarrabuna yi su ko nekkoon bokk ci ma ma mam xóotin yi mujjug jaam yàlla gu nekk noonu la ci jaam war a mel rafet njort ci ne dañu ko nangu waaye ragal ci ne duñ ko nangu alxasanul basri yi dafa mas a romb aw nit ñuy xàqataay ak ree mu ne sumba aso jalla day dafa def sawru ramadan mu nekk lu mu dencal ay bindeefam ñu di ci njëkkante ci topp ko aw nit jiitu dal di aw nit des gannaaw dal dal di sooy mu ne ko nag dana yéemu lool ci kiy xàqataaya karee fo ci bis boo xam ne ña jiitu ca lañ texee ña des gannaaw ca lañ ca lañu sooye ma ne wallaahi su fekkoon muri nañ kiiraay li bañ jàkkaarloog la la la la fa ne lastaxalal muxsinu bi ixsaanihi wal musiu bi isaatihi mooy mbégtem kañu nangul dana ko soxlaal loo dana ko soxlaal wëlif muy fo waaye pertu kañu delloo ay jëfam nag dana ko doy sëkk ba mbëddal ko buntu bu ree ba du tala ree ba ñu axnaf ci dama axnaf mu ne dafa am dañ ko dañ ko dañ ko ah, dañ ko wax ne ko yow mag nga fi ne mag nga sa yaram at na tut koor day néewal doole mu ne inni aidduhu li safarin tawil wa sabru ala taatillah subhanahu ahwanu min asabri ala adabi loolu gisin wu xóot a xóot la bu kawe daal man dama koy waajale tukki boo xam ne tukki bu gudd a gudd la te muñ jaamu yàlla gi moo gën a yomb muñ muñ mbugalum suñ borom loolu gis-gis bu kawe kawe kawe kon ñi ngi jeexal ndax tom boobu sax daal ko moo ëpp ci waxtaan wi eh, te jotuta xaaj sax nag muy muy muy muy koor lim lamba ci asraar ak ak ak ak ak ak jotu taxaaj waaye na ku ne xam na ne bis bii ni ñu ko waxee ci njëlbeen Cheikh mu taxa da ko yittee lool da ci yebal ay ndaw si Mahamadou Xabaan mi ngi nii toog sunu wet war jot li kàdduy sëriñ bi jëm ci mbooloo mi kon damay tëje rek lenn ci njariñ yi nga xam ne koor am na ko jeexale ko waxtaan wi ñu xam ne koor la ca ci njariñ mënee su ko wax lépp ci benn jotaay waaye daal ñu xam dafay laabal xol ci ay tër dafay tëskiya bakkan da koy sellal ci mboolem tër yi dafay yar ruuxu dafa ko sellal ci lépp loo xam ne ak lépp loo xam mën naa saafara aw maram ci ay duruus muhimma ci weer wii di weeru koor ak woor ko du ñu xamal ne itam weeru weeru weeru la màgg wu barkeel woo xam ne weeru woor la weeru taxaw guddi la weeru jàngal alxuraan la weeru gore ci sawara la weeru njëggal la weeru sarxe la weeru jëf lu baax la rafetal weer la wu ñuy ubbi mboolem bunti ajjana yi di ci ful mboolem jëf yu rafet yi di ci jéggale mboolem rëcc rëcc yi woor la wu ñuy nangoo ñaan yi di ci yëkkati daraja yi di ci jéggale ñawteef yi weer la wax su mbonde ci gën a yaatal ak tabam subhaanahu wa taala ci ay tiraangaam ci ay jaamam ci xeeti tiraanga yu bare bari da ci dolli ay ay ay mayam ci ay awliyaawum koorit dafa làmboo ay xeekam yu màgg boo nga laabal ko ci jikko yu ñaaw ni ki bon des gannaaw yàq tayal nay di ko tàmmal jikko yu tedd ni ki muñ lewet tap ak tiraanga jixaar ak bakkan ci lépp luy gërëm yàlla di ko di jegal eh, bokk nañ njariñ itam dafay xamal bakkan bi dafay xamal jaam bi boppam mu xam boppam xam ay aajom xam ak lottam xam ak aajaw boromam di ko fàttali ne itam xéewalu màggu xéewalu yàlla ci moom saa bu yëgee xiif yéeg na mi ngi doon wëlbati wëlbati ko ci ay xéewal at mi lépp wenn weer képp ñu tegg ko ca xiif loo ko ca dana xam ne kon dana dana ca xamee xéewalug yàlla nu mu yaatoo ci moom su ko defee nag war na ci aji ji kon mu sàmmante lépp ci lu la la jaar ci nu sàmmanteek moom ndax salaa sa nee na képp ku bàyyiwul jëf neen waxi neen yàlla am soxla ci koram koor nag kon tahdib la du tahdib dama ko far di wax koor du tahdib waaye tahdib la maa du mbugal waaye yar la waaye soxtoo fekkoon amul benn njariñ bu ca laqatu it amul benn ke benn wàññi bu ci nekk ndax wàññi ko mi ngi bàyyi ko ci su tasarrufi saay mi ñaawu jëfinu aji war ji rek ak ñàkk a wéeru xolam kon lu néew la lu tukkee ci lu bari yàlla na suñu borom boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal ci yàlla na yàlla fegal lori lépp ak ñépp te fegal lépp ak ñépp ci sunu lor li gën ci nun yàlla ko sunu moon defal dëppale li nu gënal te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangul sunu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu